ñeel kon seeni i mbir bopp mu di ñoom waa Bennoo Bokk Yaakaar di la gërëm docteur Malick. waaw maa ngi leen di gërëm ci surtout invitation bi di nuyu doomu Sénégal yi si biir réew ak yi euh, si bitim réew. waaw di la gërëm yow tamit ci ni ñu nangulee ñu amal waxtaan wi euh, di ko doore ak euh, nouvelle bi mu di samedi choisir ngeen seen candidat yow déjà AFP nga nekk sa leader. Euh, Moustapha Niass moo ko moo ko yéene sax ba ñëpp jot ci ndax xaaroon nga ki ñu tabb mu di Amadou Ba. waaw damay tàmbali rek ne bon question bi mën naa wax ne léegi léegi euh, tout de suite xaaroon nañ ko parce que mën nañ jàpp ne moom moo nekkoon euh, favori ñu jël rek processus bi je pense que processus bi dafa am solo mi ngi tàmbali 3 juillet 3 juillet mooy bés bi nga xam ne bés. bu ñu war a dugal ci raayab Sénégal ci ci ci euh, ndamub Sénégal mooy bés bi président makisal euh, taxaw ci kanamu sénégalais yi taxaw ci kanamu également euh, ñi nekk bitim réew ne leen damay sàmm sama kàddu duma briguer encore une fois benn troisième mandat donc mu lu ñëpp rafetlu ñëpp kontaan ci parce que du loolu rek ndaxte benn du briguer troisième mandat ñaareel bi c'est la première fois ci Sénégal ñu gis chef de l'État boo xam ne dafay organiser ay élection te du ci bokk donc sur le plan démocratique c'est une très très bonne chose ñaareel bi processus bi bi mu waxee loolu ñu demander au différents partis ku si nekk wax ak sa base ñëw conférence des leaders toog chaque leader wax lan la ko basam wax ci li nga xam ne moom mooy mbirum sélection boobu naturellement ku ci nekk da nga dem wax ak sa base su ma jëlee parti bu mel ni AFP ñu am trois cent quatre-vingt-cinq euh, collectivités territoriales yoo xam ne suñu kuréel yi dañ si nekk ku si nekk wax ñun au niveau de l'AFP dañu joxaat kàddu gi dañu delloo kàddu gi président Moustapha Niass ne ko kat ah demal conférence des leaders lépp loo xam ne jëlee nga ko fa ñun dinañ d'accord ci décision boobu ni ko président Moustapha Niass defee noonu na ko ñeneen également chef de parti defee donc bi ñu dajee ñoom conférence des leaders au niveau de Benno Bokk Yaakaar ñu ne jox nañ carte blanche président Macky pour mu tànn ki nga xam ne moom mooy euh, représenté euh, le 25 février 2024 Benno Bokk Yaakaar muy tànneef nag bu métti du lu yomb comme tamit démocrate la président Macky Sall ne du ma yemale ci man toog pale jël euh, jël sama bic sama feuille bic ne ah kii laa kii laa tànn mu delloo ko président Moustapha Niass ne ko nag defal li ñu naan les auditions de ñi nga xam ne ñoom ñooy candidat ñu boole si nag ak ñeneen ñoo xam ne c'est des leaders de benn Bokk Yaakaar pour gën a yaatal discussion yi pour gën a yaatal critères yi mu am critères yu am solo yu ñu teg ah Sénégal de fi mu tool si mbirum koom-koom képp koo xam ne dafa war a ñëw remplacer président Macky Sall war na nekk koo xam ne xam na lan mooy plan Sénégal émergent xam na lan mooy plan d'action prioritaire xam na naka lañu ñu yore réew xam na naka la ñu mettre en œuvre politique publique yooyu maanaam li ñu liggéey li président Macky liggéey ci faj ci jàng jàngale ci infrastructure et cetera et cetera donc loolu muy loo xam ne tamit dañ ko tegoon comme critère beneen critère bi tamit muy critère bu am solo ne ah su dee tànneef bi la comme am na candidat yu bëri ku ci nekk am na dayo boo xam ne mën na la permettre nga nga nga jiite ne ah benn nit ki war na am expérience de l'État war na nekk koo xam ne dafa am transversalité maanaam ci biir État du lenn rek la mën waaye loo ko ci jox dina ko mën mu am bi ñu naan vision panoramique ñu ne koo xam ne la dafa war a nekk rassembleur au sein de Benno Bokk Yaakaar et ailleurs maanaam dina fexe ba waa Benno Bokk Yaakaar booloo ci liggéey bi waaye tamit dina yokk li nga xam ne moom mooy dayinu Benno Bokk Yaakaar saa à uti ñeneen ñoo xam ne ñu ngi à l'international comme ñu ngi ci biir réew mi pour ñu bokk ci loolu. d'accord bi ngeen ko defee donc la choix bi génn noonu la choix bi. génne ñu mhm. choisir donc moo tax ma ne mbir bi bettu la parce que profil boobu nag ñu ñu teg noonu ah, mm, profil vraiment idéal bi mooy euh, Amadou Ba li ñu jaaxal wala man li ma jaaxal mooy AFP dafa nekk parti mhm. AFP moo jiitu APR AFP yàgg na di soobu ci mbirum réew mi mhm. mais ñu war a dem ba tànn ñëpp njortoon ne président Macky Sall ki tànn ci biir partem lay jóge et pourtant looloo am pourtant yéen da ngeen ànd àndu nawle lan moo tax waa AFP ñoom samp ñu seen ndër mbër ni kii mën na tamit wuutu ki nga xamante ni moo yor bopp réew mi parce que en fait bu fekkee vous êtes un organiser partie parti je pense que warul toog di rafle candidat waa xam nga euh, dama bëgg ñu clarifier un certain nombre de choses Benno Bokk Yaakaar déjà dañu xam ne Benno Bokk Yaakaar membre fondateur u Benno Bokk Yaakaar maanaam bu doon société ñu ne ku si nekk da nga am ay part sociale amul kenn benn parti bu ci ëpp part social alliance des force de progrès muy AFP parce que ñun ñoo créé Benno Bokk Yaakaar benn ñaareel bi bu weesoo PS ñun ñoo ko créé bu ma nee ñun rek du ñun kese. waaw parti socialiste ci la bokk. waaw donc bu ma nee ñun parti socialiste la ci la bokk. waaw donc am na yeneen ñu si bokkoon. Mhm. mais ñun ñoo créé Benno Bokk Yaakaar donc bokk ci actionnaire majoritaire yi bu fekkoon ne dañuy wax comme comme comme société ñaareel bi. li may rappeler ba léegi de 2012 à de de 2000 à aujourd'hui parti politique mosul dem élection il y a des coalitions d'accord coalition rek moo mos a dem élection waaw benn sigil Sénégal coalition la ñu doon Sénégal bi nga xam ne moom moo jiitaloon président Moustapha Niass coalition la d'accord on une coalition de 42 partis on est d'accord donc lépp loo xam ne tey dañu dañu naan élection la dañu jël coalition ñu jël ci biir coalition bi ñu tànn ci kenn waaw ñun bu ñu bokkee ci coalition yi nekk ci membre fondateur ñun jàpp nañ ne quel que soit ki nga xam ne tànneef la ci biir que mu jógee AFP que mu jógee APR que mu jógee parti socialiste fépp fu mu munti jógee ñun jàpp nañ ne kooku ñoo bokk coalition donc suñ bokkee coalition ñoo bokk li ñu bëgg ñoo bokk gis-gis ñoo bokk façon bi ñuy doxale ñoo bokk également programme bi nga xam ne moom lañu ñu mais terewul ku nekk sa parti war moo la war a gënal parti keneen te seetlu nañu ñi ñu doon auditionné dégguma ci ku ku soqee ko AFP. oui xam nga xam nga xam nga moo tax ma ne ñun suñu fonctionnement ak suñu suñu formation politique moo ñu may ñu am cette vision la cette ouverture cette capacité de compréhension bi nga xam ne yow da ngay comprendre que ne ah man de fi ma bokk nii fi mu ne nii man de je fais la différence entre koo xam ne dañ ko jiital mi ngi ci biir. AFP wala mu ngi ci APR wala mu ngi ci parti socialiste te bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar dama jàppane rek bu ñu jëlee profil teg ko su fekkee ne profil boobu gis nañ que ne ñëpp d'accord nañ que ne profil de manière démocratique ne profil bii moom mooy profil bi nga xam ne moom moo baax pour Benno c'est tout à fait normal que ñun ñun ñu gis ci suñu bopp parce que ñun dañu bokk ci aada ADN Euh, Benno benn Benno Bokk Yaakaar. d'accord naa mais cons déjà consensus bi formation politique mais consensus boobu ngeen di wax ñëpp gis ci seen bopp mënta ne. c'est sûr et certain que mënta ne dina am ñoo xam te dañ naan ànduma ak choix président de la République parce que ku nekk aussi am nga am nga sa sa liberté boobu noonu d'accord nañ ku nekk ah, da nga war a am sa ambition personnelle mhm. mais man sama inquiétude mooy AFP dans tout ça le parti de Moustapha Niass parti bi nga xamante ni moo jiital Ablaye Wade ba def ko président en 2000. parti boobu lan mooy ëllëgam. parce que ci ay choix biir Benno tax na l'hémorragie continue au sein de l'AFP. ban hémorragie parce que kàngam yi ñu fa doon dégg ñu ci bëri ku ci mel ni Alioune Sarr moo bu ma jubi moo nekkoon seen ministre au sein du gouvernement nee nañ nee ngeen dàq ngeen ko parce que dafa bëgg a nekk candidat à l'élection de 2024 Malick Gakou dàq ngeen ko l'autre chose ñu bëri di ko ñaawlu biir AFP président Moustapha Niass dafa dajale woon ay militants am ni leen 2019 nañu gunge président Macky Sall may ko deuxième mandat 2024 nous aurons un candidat décembre 2022 léegi naa ngeen bind ñu bind ko mémorandum di ko laaj fan la toll ci li mu leen waxoon tey tontu leen ba nii may wax ak yow laajte naa Moustapha Niass tontuwul ay militants AFP. man maay porte-parole bi nous c'est quoi la situation est-ce qu'il avait déjà promis qu'il y aurait un candidat de l'AFP en 2024 oui ou non dama lay wax déjà plusieurs choses ñun 23 ans lañ def AFP am na 23 ans bokk ci partie yi gën a yàgg mais am na sax parti yu ñu gën a yàgg am na ñu def 40 ans ñu def 60 ans mais 23 ans quand même c'est c'est quelque chose c'est beaucoup pour un parti politique du parti politique bu am deux ans trois ans donc parti politique yu bëri tey jii ñuy créé ci biir. loolu kay dafa leer. Euh, et puis parti de masse la. ñun du ñu parti euh, boo xam ne bon parce que parti yoo xam ne parti intellectuel et cetera parti de masse dangay am une représentativité dans les cinq cent cinquante collectivités territoriales du Sénégal am fa des représentants jeunes femmes mixtes donc parti de masse y en a pas énormément dans un dans dans dans comme le nôtre donc parti de masse ni muy fonctionner. Mm-hmm. am école du parti am mouvement de jeunes am mouvement de femmes et cetera bokkul ak parti boo xam ne ñetti nit juróomi nit ñoo fa nekk di liggéey li xam ne noonu la ñuy fonctionner. tudd nga ñaari nit yoo xam ne tey considéré que nga ñaari nit ñooñu quitté nañ AFP te sur vingt trois ans d'âge au-delà de ces deux personnes qui ont quitté l'AFP il y a énormément de. responsable énormément de leaders énormément de militants yoo xam ne entre temps ñëw nañ biir AFP yokk tamit deminu alliance des forces de progrès muy ñaareel bi euh, ñetteel bi euh, dañu jàpp ne moom ko mooy mooy euh, comme li mu la wax noonu dañu jàpp ne boo yoree parti politique. pourtant lim bi dama bañoon dugg ci ñeneen rek mais lim bi bëri xam am na ñoo xam gisatuñu leen ay Mata Si Diallo ñoo doon toog ci wetu président Moustapha Niass ay ñeneen ay ñeneen bëri mag la mag la. lim bi bëri na. ñoo xamante ni ñoo sancoon AFP am na énormément de personnes aujourd'hui yoo xam ne ay leaders lañ tey ñu ngi dugg tous les jours. biir AFP ñu ngi dugg. bien sûr man man je suis le porte-parole je suis je coordonne beaucoup de choses au niveau de l'AFP wax nga fi tudd nga fi mémorandum amul mémorandum boo xam ne structure AFP bind na ko amul ça n'existe pas. xam nga dafa di neex bu leen neexee ngeen AFP reconnaître lui AFP du ay instance am ñoo décidé lii fekk ñi ko dis ñi ko bëgg. déglu déglu déglu bu baax lim la wax. xam nga parti de masse lañ ñun. amuñ ñetti nit ñeenti nit. parti boo xam ne dafa bari nit la donc te ni ñu fonctionner de manière democratique dafa am idée yu bari yoo xam ne bokkul bokkul di nga gis kii ne A kii ne B kii ne Z kii ne lii ku ci nekk dafay wax li mu xalaat. mais fonctionnement wu parti en termes d'organisation su ñëpp taxawee xalaat dara jëlee ko ci base bi yéegal ko bu ñu jëlee synthèse bi majorité bi li mu wax moom la ñu arrêté te loolu mooy démocratie nag il faut qu'on soit démocrate cest à la majorité li mu wax moom la ñu arrêté d'accord man nga gis mille personnes taxaw sur les mille personnes nga gis ne deux cent yi dañ ne d'accorduñ ci deux cent deux cent Euh, euh, majorité 202 ñu kii kon majorité moo koy emporté. boo bu bu cent personnes yi waxee lii. waaw 202 personne wax lee 202 yi ñoom ñooy ñoom ñooy majorité. non dama ne tey boo jëlee boo boo boo jëlee lim ci parti politique nga jël 1000 personnes 1000 yooyu cent yi. Euh, euh cent yi ne euh, ne d'accord nañ ci dara cent yi ne d'accorduñ bu ñu jëlee bu ñu jëlee total bi dañu gis ne majorité bi d'accord nañ li majorité bi wax la ñu yàll loolu mooy loolu mooy fonctionnement d'un parti politique mais mais mais le mën nañ xam moo ko jëlee kon AFP à part moom wane ay ambition moom moo xam yéen a ko dàq non moom moo xam d'abord d'abord d'abord en termes de légitimité en termes de légitimité il faut que ñu xam ne ñun du ñu parti boo xam ne da ngay yeewu rek ne candidat nga déedéet ñun c'est un parti boo xam ne dafa am une un système d'organisation dafa am c'est c'est c'est hiérarchisé xam nga lu tax parti hiérarchisé parce que la hiérarchie lan moo ko indi euh, kii congrès moo indi hiérarchie dans un parti tey boo ñëwee jël parti bu mel ni alliance des force de progrès nga ne Ndakaaru dañu dem ko dañu jaay carte dem congrès installé les collectifs installer les section installé euh, les installé installer les arrondissements le département dem au vote man bi may voté bay nekk responsable département de Dakar y avait neuf candidats donc quatre maires. yow yaa département yaa jiite Dakar. lan moo tax sampo sa ndënd am yéene. Ah, maa ngi ñëw ci loolu mais dama dama lay wan rek dara donc mu amoon neuf candidats. donc donc donc quatre maires. d'accord ma gagné donc étant responsable de Dakar kenn mënul jël décision ci dak ci Ndakaaru pëpp ki nga xam ne moom mooy responsable bi parce que ba ñu ba ñu ba ñu xeex pour pour pour pour pour ñu samp ay ndënd euh, dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo gagné woon xeex boobu moom moo leen di permettre ñu am des responsabilités maintenant nit bu bu nekkee bu bu bu bu yeewoo ne man maay responsable cadre dama bëgg a diriger responsable cadre man du sama responsable du responsable keneen ban légitimité ngay am ne yow yaay diriger euh, yow yaay nekk candidat y' a de légitimité bu bu bu bu bu ko permettre maintenant nit ki nag bu gisee ne amul légitimité boobu dafay ut feneen fu mu jaar. yow am nga légitimité mais lan moo tax Sampo nekk candidat à la candidature. xam nga xam nga tey tey. Euh, le le circuit interne ci biir alliance des forces de progrès kenn mënu la wax ne ci biir circuit interne des discussions autour de candidature au niveau de l'alliance des forces de progrès amul. waaw ah, léegi président Moussa maintenant ci biir discussion yooyu. xaar rek xaar rek il faut il faut que nga comprendre nu ñuy fonctionner aussi si biir discussion yooyu ñun dañu am la base man tey bu ma doon nekk candidat base bi moo may propulser. bu ñu yegg see dafay yéeg yéeg yéeg ba secrétariat exécutif politique. waaw waaw secrétariat exécutif politique nag en majorité moo décidé ne l'alliance des forces de progrès sur la base de ñun liggéey bi ñu def dafay jox le le le le quitus au président Moustapha Niass pour que à la conférence de leaders choix bi ñuy def foofu nekk choix wu AFP boobu. période boobu ñun def nañ en tout cas. travail bi nga xam ne moom dañ koo jox euh, carte blanche ni ko mais au décidé ànd nañ ci. waaw mais avant la carte blanche xool nañ force et faiblesse xool nañ suñu biir énormément de choses parce que ñun on est des responsables. xam nga sànq yaa ngi wax kàddu fonk sa kàddu mais président Moustapha Niasse moo waxoon waa AFP que 2024 AFP dina am. candidat non président président Moustapha Niasse ñun ni ñuy fonctionner. du président Moustapha Niasse mooy ñëw ne dañu am candidat wala dañu ñàkk candidat. pour une échéance à venir. dama ne ñun fonctionné wuñ noonu secrétariat exécutif politique bi mooy décider moom mooy ñëw toog président Moustapha Niasse moo koy diriger su koy diriger dafay ñëw indi sujet ne sujet bi tey lii la. donc la promesse n'a jamais été faite candidature la. kon la promesse n'a jamais été faite. non c'est pas. au président il faut nga comprendre. ok waaw baax na c'est pas au secrétaire général. de faire une promesse. d'accord ba tey. c'est le bureau politique moom mooy ñëw jël décision su jëlee décision ne ah bii de décision bi lii la arrêté bureau politique bi lii la arrêté ñu jébbal ko nag secretaire général bi mu gàddu dem doxi li nga xam ne loolu la ko bureau politique wax. ñëpp xam nañ ni parti buñ koy former pour mu participer ay échéances pour mu dem ci ay jongante lu même bu dul dara sax dina ko permettre. mu mën a di peser boppam di xool tolluwaayam individuellement fan la toll. dans quel cadre. non parti politique laa. wax naa la benn parti politique gisuma ko man mu taxaw ne dafay dem élection présidentielle. mais dama ne parti politique. Mhm. buñ koy samp. oui objectif d' parti politique. Oui. ou destin d' parti politique c' est de conquérir le pouvoir. d' accord AFP fan la toll fi ñu toll nii. même bu fekkee parti yi léegi ay alliance la ñu on plus de parti. mais mhm. AFP fan la toll. AFP fi mu toll aujourd'hui mooy sur le renouvellement de ses instances nous sommes le seul parti au Sénégal. renouvellement foofu ngeen toll. déglul ba baax ma wax nous sommes le seul parti au Sénégal de deux de quatre-vingt-dix-neuf a aujourd'hui à être allé trois fois au congrès congrès vrai laa wax nag waxuma yeewu rek dem ci benn salle ne congrès congrès boo xam ne da ngay xeex de la base au sommet man mouvement des jeunes mouvement national des jeunes. bi ma koy perte je l'ai perdu d'une voix c'est pour ça que je suis le vice-président du mouvement national des jeunes bi ma amee 35 ans on m'a sorti du mouvement national des jeunes pour que ma dem xeex ci mouvement des des des des euh, de ceux qui ont plus de 35 ans des adultes entre guillemets ok ci loolu moo ma permettre ma xeex sama commune commune Fann Point Amitié arrondissement du Plateau ñëw dakaar gagné Dakar nekkoon nga sax maire fan point fan point boobu ci bannière AFP la woon Benno Siggil Sénégal Benno Siggil Sénégal kan moo ko jiite woon locomotive bi c'était l'AFP tout à fait waaw boobu ba léegi dañuy sentir ne AFP même bu dee ci gain ci biir Benno mais kenn sentiratu ko AFP instant ñaata député ngeen am on a trois députés trois députés mhm. ci locomotive même bu dul la locomotive phare mun nañ ni moo topp ci locomotive bu mag bi oui mais bu gën a mag bokk. mais mais trois députés xam xam nga so. élection locale yi gisuma ay kàngamu AFP yu gagné seen base. am na ñu gagné seen base. élection locale yi gisuma ay kàngam yu ñu tabb ku ci mel ni yow mus nga nekk fan point euh, maire. Mhm. est-ce que. yow man j'étais waaw mais à part yow. c'est à part yow keneen ci AFP kan moo gagné biir Dakar wala kan moo tegoon ndëndëm ñu bennoo. da ngay fàtte ne dakaar on a perdu quasiment toutes les communes. oui amoon ngeen candidat. nu ñu gagné dakaar te ñu perte commune. non amoon candidat moi je parle de candidat. Zator était candidat à Mermoz rek ma wax la benn par benn Zator c' était la tête de liste de Mermoz Ousmane Ndoye le maire Ousmane Ndoye c' était la tête de liste de Gueule Tapée Fass Colobane. daf reconduction. le maire Pape Seck c' était la tête de liste de de de des HLM. reconduction mais ils, ils été battus à Dakar. reconduction lañ bëggoon waaw. c'est Zator c'est-à-dire <laughs> Zator moom bon. Zator Zator c'est Zator mais ils ont voilà. xam xam nga tey mënoo ne da ngay dem élection par force da ngay gagner dem nañ élection ils ont perdu il des gens qui étaient déjà maires qui voulaient être renouvelés qui ont été battus mais loolu nous l'acceptons parce que nous sommes des démocrates parce que sur Dakar on a perdu quasiment partout. Dakar euh, tu prends Dakar aujourd'hui APR n'a pa un un un l'APR n'a pas un une collectivité territoriale parce que on a quasiment perdu toutes les collectivités. fu mu kay waxu mais mais xam nga boo nekkee ci benn coalition coalition bi perte élection yi ci zone boobu. nga wax nga bëgg wax zone boobu. kon léegi AFP ñaata mairie la am si moom dafa bëgg a langaamu ci Benno jusqu'à quand. non ñun langaamu ci Benno ñun ñoom ñun dañu bokk ci ñu moom Benno. waaw bokk ci ñu moom Benno mais nekk locomotive kay xanaa amul lu ko gën a neex pourquoi nekk wagon à vide. non nous on a toujours été locomotive dans Benno lan mooy wagon ak lan mooy locomotive. locomotive on a toujours été locomotive locomotive bi kay mooy. on a toujours été mooy joxe ay cër. parce que poste assemblée nationale. mais président Macky Sall on est à l' assemblée nationale. aujourd'hui soo fa demee la deuxième nombre de membres de HCCT c' est c' est. HCCT ñëpp xam ne ñu koy fale président mooy dafa liste rek. waaw mais te te en tant que politique. Ah, amul lu gën mandat amul lu gën mandat mandat bi nga xamante ni c' est électif. neuf au conseil yoo xam ne yow xam nga ni en tant que acteur politique mandat électif amul lu ko gën nationale bi lañ la tabbee. ci législative yi oui mandat électif nga jàlloon tey département de Dakar. Mhm. mais loolu moo ëpp fierté ëpp ëpp légitimité. pourquoi. mandat électif ban ngay ban façon mandat électif ngay wax. non dañ ni ma HCCT man la yooyu ay liste la président de la république di defar. oui bu fekkoon nag yow supposons à l'Assemblée nationale da nga jàll ci liste départementale. non man j'ai été élu. à l' assemblée nationale. xanaa xamoo fonctionnement bi naka nationale liste que muy nationale tous les députés ont mais bien entendu tous les députés sont élus au suffrage universel. Oui. direct. mais la, la légitimité. la oui. légitimité. oui légitimité. la légitimité c'est le suffrage universel direct. un député à l' assemblée nationale les 165 cinq ci nekk dañ la élire au suffrage universel direct. je te je te renvoie. sur l' administration publique quand même administration publique moo mel noonu. xam nga li mu wax ni ay texte la man dama la ni. légitimité nga xamante dañ ko fal. ci liste départementale mu base nekk xam nga xam nga yow affaire mairie nga wax. tu parles pas de de tu tu tu parles pas de. d'une ak liste départementale. oui xanaa kay xam nañ ni. la a cette particularité d'avoir des leaders yoo xam ne ñoom ñooy xëcc sax liste départementale yi d'accord parce que nit ñi dañu xool ne diw mu ngi fi ñu voté ko ndax diw d'accord léegi c'est ça la légitimité d'accord léegi ñu ñëw bala ñoo jeexal ci Benno jël ngeen Amadou Ba oui Amadou Ba il est de la paire mm-hmm. yéen yaakaar ngeen ni élection yi ñuy dëgmal Amadou Ba mi ngeen tabb dina gagner Sénégal Amadou Ba en au matière, premier tour en matière de au premier tour en matière de en matière de de d'élection oui Amadou Ba lan moo leen war lan moo war a dal seen xel ci yéen ba ngeen yaakaar ni Amadou Ba sénégalais yi dinañ ko xool wóolu ko. et l'autre chose mooy sénégalais bu ñu doyalee ci président Macky Sall supposons président Macky Sall ku mu choisir mais est xam nga kooku noonu jafe-jafe yi mu a am pour continuer. kan moo doyal ci kan. non je parle de de je parle d'hypothèse bu dee sénégalais dañu doyaloon. ci kii gagné élection 2000 ba léegi nga ne moom lañ doyal ci moom. président Macky Sall musul perte élection. non dama ni ñu doyal ci moom. Abdoulaye Wade daan na gagné élection mais dafa gagné élection 2000 ba léegi nga ne dañuy doyal ci moom du ñu doyal du ñu doyalee ci moom. explique si. waaw poser hypothèse boobu. mais si si mais hypothèse non valable la. ah déet non hypothèse yëpp mën na valable na. on sait bu dee Sénégalais dañoo doyal. mu tabb candidat muy Amadou Ba ñu ni day continuer li Macky Sall doon def li président Macky Sall doon def ngeen di wax PSE nangam maanaam fi Macky Sall doon teg tànkam fa la koy tegaat est-ce que loolu amul risque tamit ci Amadou Ba. dama lay bëgg a expliquer parce que am na ñaari question yoo posé ci question bi. waaw mbirum dem élection ak amadu Ba ñun dañu àndoon ak Amadou Ba en 2017 def campagne sur la région de Dakar. mu bàyyi ba deux heures du matin mu yeewu mu nekk tête de liste Dakar ñuy def campagne tous les jours. gagné gagné boobu ki ñu yaakaaroon ni moo ki boobu ki ñu ni mooy le boss de Dakar il était en prison muy Khalifa Ababacar Sall xam nga yaa ngi dugg ci loo xam ne sa analyse propre la waaw ba tey ba tey mais damay wax ni rek jamono analyse propre jamono jooju lii moo taxoon sa analyse propre nga c'est une analyse fausse parce que ba ca topp c'est une fausse analyse ba ca topp ba ca topp Amadou Ba nekku fa woon mais dama la bëgg a wax rek li nga wax sa analyse la man sama analyse man mooy lan mooy bi valable c'était Amadou Ba mhm. premièrement deuxièmement on a fait une campagne dans une équipe plurielle au niveau de Dakar mhm. nga jël également des identités remarquables au niveau de Dakar ñu ensemble liggéey y avait quasiment pas ay liste parallèle et cetera ñu dem ànd gagner largement Dakar mhm. donc déjà ça c'est une première expérience le deuxième élément également bi ngay wax koo xam ne loo xam ne tamit euh, c'est euh, c'est important suñu nee plan Sénégal émergent il n'existe pas il n'existe pas laa wax un Sénégalais objectif amul bu mënul bu mun a wax ne de a à aujourd'hui il n'y pas eu énormément de réalisation du président Macky Sall. ci infrastructure. ci santé d'accord ci éducation. ci inclusion sociale defal ndànk soo soo bëggee ma comparer ko léegi sur le plan économique. ça n'a rien à voir ça absolument rien à ah oui ah non non moo ah bëggee léegi ma dugg ci économie bi nag. waaw donc mhm. pour dire que loolu c'est une réalité donc sénégalais yi. waxuma sax waa Benno doomu Sénégal yow man keneen ak keneen ku nekk diaspora et cetera pour xelam dal il faut impérativement ñu ne ñu xam ne ki nga xam ne mooy wutu président Macky dina continuer réalisation yi ba yokk ko d'accord dina continuer réalisation yi ba yokk ko d'accord mais bëgguñu ñun en tout cas doomu Sénégal en tant que citoyen sénégalais jël koo xam ne dafay toog xamul fu mu jëm amul compétence bi. amul programme non liggéey président Macky Sall nag euh, am na ko ci mel ni Abdoulaye Daouda Diallo moo gën a yàgg ci gouvernement bi. man tudduma tudduma waa Benno tudduma waa Benno de. ah non non non là. là il s'agit de parler non non non non là il s'agit de parler de Benno. déedéet déedéet non fii moom waxu Benno lañ fi wax. déedéet man damay wax. yéen seen biir. man waxu opposition laay wax. léegi une minute moo ñu dese yow waxu Benno nga man opposition laa wax. non une minute moo ñu dese. waxuma Benno parce que Benno c'est des qualités. yi ki nga tudd noonu ki nga tudd ki nga tudd noonu dafa am qualité. créer leen consensus. non xaaral xaaral kon Benno mooy les hommes de qualité. oui en dehors de Benno c'est c'est quoi. en dehors de maintenant y a pas de programme ba léegi man gisuma kenn koo xam ne yaa ngi opposition di fi wax affaire programme xam nga lan la ñu wax xam nga lan la ñu wax déedéet non ma ne ma ne ñun suñu problème rek la ne ñaa qu'un seul candidat à Benno c'est Amadou Ba c'est moo tax may kon keneen ku ku jóg ni candidat day génn Benno benn candidat la am amul ñaari candidat Benno moom benn candidat léegi dernière question dernière question docteur jeexal jeexaluma docteur Malick Diop dama ne dama ne dernière question docteur Malick Diop ñoom seen seul seen seul ah. seen seul programme c'était Macky Sall dafay def troisième mandat bi Macky Sall ne deful troisième mandat fi mu ne nii dañu jaxasoo dañu nërmeel loolu nga yaakaar on on verra loolu moo nekk loolu moo nekk nañ ci am lu ñu leer d'ici léegi question bi lan la bu ñu gañee Benno qu'est-ce que va devenir amul ah, gañee Benno Benno mënuñ ko gagné. Benno bu perte élection yi la. la Benno mënul avec AFP qu'est-ce qu'il va devenir. Benno mënul perte élection yi c'est pas une hypothèse. qu'adviendra de votre mu nekk yow fële amoo amoo candidat. ñu bëri ñu wax. docteur Malick sax am parrainage. docteur amuñ programme. bu ñu gagné Benno nan ngeen di def yéen waa AFP. qu'est-ce que vous allez devenir. parce que jusque là. parti al toppe ngeen. parti yóbbaale ma ngeen. loolu loolu loolu. xam nga yow yaa ngi def jugement subjectif. non non da non non. Euh, journaliste la non wolof la. journaliste mais wolof la li may laaj. wolof dam lay jox rek dam lay jox rek. dam lay xoolal journaliste nga. mais wolof la journaliste. non dama la bul wax comme opposition. non wolof laay laaj. làkkoo wolof non yóbbaale ma. waaw mais loolu mooy jugement subjectif dama bëgg. sa jugement subjectif boobu. bu ko def en tant que journaliste parce que. journaliste loolu mooy parti yóbbaale ma. non da ngay loolu parce que loolu du yëfu journaliste. léegi bu ñu gañee benn waaw opposition mën nañ def noonu. bu ñu gañee benn quest nan ngeen fas yéene. ah benn mënul per ñun ci li ñuy dem premier tour la ñuy gañe incha allah. nga teg ko fan. ma teg ko des éléments wax naa la ko léegi. l'appareil de Benno le programme de Benno le candidat de Benno les partis qui sont avec Benno mais attends. loolu yaakaar ngeen kon Benno mu ngi existé ba léegi à part le nom Benno bennoo de lan moo des benn musul am coalition bu toll nii noonu bu toll nii benn. à part Aminata Mbengue Ndiaye Moustapha Niasse. leur parti y' jamais eu ku ci nekk sa parti a jamais eu ci nekk sa parti tasaaroo autant de partis dans une coalition te chaque jour ñu yokk mu yokk chaque jour mu yokk di nga gis ñoo xam ne ñi ngi woon opposition dinañ ñëw di nga gis soreetul. docteur Malick Diop ñu yemale kon waxtaan bi fii. waaw macha allah kontaan nañ ci émission bi. permettre nañu ñu leeral lu bëri ngeen xam kuy candidat bi ngeen xam également fonctionnement parti politique organisé structuré tel que l'AFP ngeen xam fu ñu jëm programme bi sur quelle base lan lañ namm pour réew mi lan la Amadou Ba mi nga xam ne tey moom mooy jël ra. Euh, bu ñu tabboon keneen ku dul Amadou Ba duñ ci à dire même AFP même Benno bu tabboon keneen ku dul Amadou tamit yow d'accord nga. non on a dit. de manière claire que dañuy joxe carte blanche. ok kon ku mu mënoon doon joxe carte blanche ba pare ne ne ne non euh, buñ buñ sa euh, pas paa Birima pas tel pas tel non. ok parce que xam nañ ne ni ñu ko defee yoon la mais dañu kontaan. ci ki ñuy choisir parce que xam nañ ne c'est le profil leader. te di nga bokk ci directoire de campagne bi jege. ah loolu moom <laughs> lu lu lu lu yàlla def rek baax na mais le plus important mooy que Sénégal am. Euh, une crédibilité buy ñëw après le le le le le le mandat de Macky Sall Macky euh, le président Macky Sall aujourd'hui a fait euh, douze ans. yoo xam ne ay réalisation pourquoi je m'inquiète maintenant yéen yéen ñi nekk ci nguur gi tout le temps c'est beau tout le temps c'est bien y a pas de chose dañuy yeggali yeggali yeggali. te ngeen xam ni Sénégalais ñu ngi leen di xaar dama ne les ñu ngi leen di xaar les réalisations ce qu'on veut c'est faire augmenter les réalisation et faire encore mieux c'est ce que j'ai dit loolu lan mooy ci problème loolu mooy espoir c'est ça l'espoir quand quelqu'un vient dafay ñëw avec avec avec l'espoir li nga xamante ni dund nañ ko ci 12 ans yi mais lépp loo xam ne xalaat nañ que ne am na lu ñu war a améliorer c'est normal mais mais amul sans le parfait n'existe pas. d'accord docteur Malick lu parfait amul. jërëjëf donc lu lu lu ñu defar rek. di ñaan yàlla am na lu ci ñaan yàlla ñu xëy un jour dégg docteur Malick Diop moo jiite AFP parce que yéen it. Moustapha Niass ne woon na il va passer la main. waaye ba mu ko waxee ba léegi mu ngi mel ni lépp bu tàbbi géej. non non c'est déjà ah. ñu ngi ci vente de cartes yi suñu paree vente de cartes yi on va vers le congrès. ba kañ ni non ñun lu ñu yeew rek dem congrès nag man nee naa la ñun bii moo nar nekk suñu quatrième congrès ñun kese amul benn parti politique Sénégal. bu ko def jërëjëf donc nag bu jotee ñu ñu renouveler. nga jiite allah. Ah, loolu moom yàlla moom moo koy. décider parce que ñi la naroon diir mbagg yëpp gars yi ci danañ leen <laughs> ah. vraiment loolu yàlla moo koy décider. vraiment ñi la waroon diir mbagg AFP yëpp jël ko. nga topp seen ginnaaw liquider nañ leen kon ñu jox la AFP rek xanaa. non y' de liquidation nga yor la bateau y' a pas de liquidation. Ah, nga doon nga doon ci nekk dem euh, ñooñu dañ jël seen yoon. comme on dit nga doon son de de de de de vieillesse à Moussa euh, au président Moustapha Niass. Euh, le président Moustapha Niass c' est un homme de qualité. koo xam ne la homme d' la koo xam ne Sénégal dañ koy ndamoo donc bâton de vieillesse je comprends mais dañ koy ndamoo parce que c'est l'expérience accumulée non maanaam maanaam c'est vraiment euh, ñë dañ ko naw à l'international comme au Sénégal donc euh, warmaal ko rek la ñuy def mbokk yi xarit yi li lañ leen indiloon mu nekk waxtaan wu gàtt ak euh, sa docteur Malick Diop nekk AFP bu bu président Moustapha Niass nekk tamit biir Benno Bokk Yaakaar di leen gërëm di leen sant doon indil ay leeral rek gannaaw ba ñu tabbee ñoom ki nga xamante ni mooy seen mbër ci élection yi ñu jëm di amadu Ba euh, premier ministre euh, du Sénégal du gouvernement euh, actuel donc di leen gërëm di leen sant mbokk yi du yàgg dara ak beneen invité ñu amal yeneen waxtaan jërë ngeen jëf ba beneen yoon.